kontaan te jàkkaarloo waat ak yéen comme saa su nekk nañu koy bi nga xamante ni bu wootee ambiance daal di yëngu mu fekk fi ay xale yi bëgg ambiance gis ngeen nag fii nag dafa def xam li nga xam ne mooy tuubalaa xale yi def nañ seen wax bu doy waar waaye damaa taam woon nag boo demee sabar gis xale yi def seen seru pellal waaye mu nekk nii xale yi def nañ jiin takk seen jiin yi ba ñu heure gis naa tamit maire yi nga xamante ni ñoo dàq fecc ci ñoom moom barkaala macha allah leen fii tey asaleen dina mel ni tuxu si saañ ba réer dina mel ni bangoor jaayee mbaa ma ne nopp yoo di dem sama caméraman bu baaxee rek mu daal di gisee ñoom tamit ñu daal xool mu ñuy sabaroo bu baaxee ñu dem ci jàmm. may ko. ah ma war sa teewaay. ah. tey sa teewaay ci sabar. sabar bi ah dañ ko organiser ba pare mag suñu xarit bas suñu xarit la et tout te fii ñu ñëpp benn lañ. moo tax ngeen benn gonte gonte seen balan bi nii si fees dell si sabar. ah parce que ñu ñëpp dañoo mbooloo nekk benn ba pare affaire dafa nice moo tax. lan ngeen di waajale premier janvier bi. premier janvier. ah xanaa jàppale bas rek incha léegi defatuñ seeru pelal bu ñuy dem sabar. la moo tax. defatu leen sëru peelal maanaam woo dootu leen sër daal bàyyi da ngeen di takk seen diine parce que moo gën a tubaabe oh. waaw ndax seen rabar neexatul <laughs> ni moo gën a tubaabe ay jigéen kese seetaan waaw gis nga noonu la <laughs> ah merci beaucoup de rien ah. merci nuyu naa la nuyu naa fay bu baax yaa ngi ci jaam nuyu naa fay bu baax yow yaa yaay Bass Thioung ah, ma dëgg la man maa yaayam maa xaritu yaayam euh, yaayam sama xarit la sama genn wàll la ak yaayam yéen a doon ànd kon moo tax ne ndax yaa waaw am naa yaayam. ma ko gisee rek euh, yàlla ndax euh, bas doom bu yàlla gërëm la doom bu yaayam gërëm. parce que dafa sonnoon ci yaayam ba yàlla fay ko lii tey lii a ko fay lii tey li mu am nii yàlla moo ko fay tey yaayam dafa liggéey yaayam dafa ñafeel ay doomam dafa lay ñafee ay doomam bu beneen góor lépp daf na ko fekk bu ko amee man damay dama kontaan dama koy sante suñu borom waaw. waaw vraiment du lu may du lu may tiit wala lu may bett parce comme li ma la waxoon rek li ko yaayam gërëm la yaayam da ko gërëm fu mu nekkul man ma toog kon tey bas bu amee lii man du lu ma bett dañ koy santay sunu borom parce que yàlla jëlee na fi yaayam teg si loxoom seen ay njabootam kon ñuy sant yàlla bu baax di ko dolli di ko sant di ñaan euh, li mu def nag asalem parce que fii la duddoo asalem nekk fii asalem bokk ak xale yi ñëpp asalem kon lépp lu mu indi asalem rek asalem la bokk ñu koy ñaanal nag grand bi yal na ko si yàlla yóbbu jàmm ak salaam yàlla musal ko si musiba ak balaa lafal ko cat yal na ko yàlla lafal cat ndax xale la li ñu soog a ko xale ñaan yàlla yal na ko yàlla lafal cat merci beaucoup merci merci jongama bi tubaarkàlla macha allah xel baa ngi nii sa jëkkër sa jëkkër daa mën yaa ngi ci jàmm. waaw li nga ko si mim réew. <laughs> nga yëg bi sa jëkkër wootee ñëpp ñëw wuyu si ko nga dugg si gis nga ambiance bi ni mu mel ban yëg-yëg nga am. non dama kontaan parce que bu baax la waaw. naka ngay waajee le premier janvier bi. maa ngi koy waaj ñëpp a koy waaj ah. waaw. mais lan mën a wax si sa jëkkër. sama jëkkër nee naa la borom baax la nit la xale bu yaru la lu am rek daf ko mérite. waaw naka ngay dundee musique bi xale yi jigéen yeeg succès beeg yooyu nga nekk xale jongama macha allah sa jëkkër nekk xale. man lañ takk. may jeeg ma toog li li si des lijjantiwuma ko. Ah. xaar ñaareel. ñaareel waaw su bokk ko rek euh, l'essentiel man maa ngi nii may première dame. mu ngaa bokk. ragaluma loolu. ñëpp lay teetaan de. ragaluma ko. ñu ne sa jëkkër bari na. sama jëkkër naa coofe xale la bébé. gis ngeen ambiance bi nga xamante ne ni moo fi xaw lii nag Bastum moo ko woote xale ambiance bu wootee rek ambiance bi nii lay mel tubaarkàlla macha allah woote fekk suñu bëgg ambiance muy waa Asalem bu woote nag di waajal li nga xamante ne ni moo di grand théâtre le premier janvier bi ñu dégmal incha allah nee naa waaw. yaa ngi ci jàmm. sant alhamdulilah. parce que lii lu mu ci ambiance. waaw mais dama ñàkk sama dëkk. ñëw sama kaw ñëw sama xol fii laa dëkk. waaw doomu dëkk bi laa dëgg neexul lii nag. waaw duñ ne gulet. ndax nag HLM lañ dëkk. dëgg neexul te dañu woote grand théâtre nag te waa HLM dañ koy feesal dell incha allah. waaw ah, ba HLM bu mel nii grand théâtre nan la war mel. grand théâtre mooy gën a métti.

dañuy jéem ba tey. waaw sa secret. waaw liggéey ñi fee. ñi fee nit boo def dara doo ko wax. yaa fi ne. waaw loolu de. yaa ne koo bëgg. sama ne la ko yóbbu sa diggante Bass Thioune ku la gis gis Bass ku la gis Bass Thioune gis na si ginnaawam. waaw ba sama bopp la sama mag la sama lépp la ba ak Serigne Saliou ku xam Fass xam naa bés nga ko xamee kon tey bu ñu demoon ba kiri dañuy ànd ak moom fekk si ko. yéen nga yëg sa papa woo tey asalem ñëpp ñëw wuyu si ko bi nga ñëwee gis nga ambiance bi ni mu mel ban yëg-yëg nga am. waaw borom xol bu rafet dem moo mën a am lii bas amaana tay bu meloon neneen du am lii waaye dañ koy sant yàlla bi ko ñëpp bëggee ak xolam ñu topp ko ak xolam sant Serigne Saliou. nan naka ngeen di waajale le premier janvier bi grand théâtre. ah ne pas retard du lu ñuy wax. surprise. tey ci kat bu mag bi naka nga koy waajalee. ba di nga def seen i waaw li may def bu gërëm bu le premier incha allah boo ñëwee dina ko gis. ah gars yi lu ñuy xaar. lu doy waar ak lu bees tàq ak Fatou Sarr. gars yi lu ñuy xaar. wax lu jot yomb. gars yi lu ñuy xaar. yow yow yaa gisagul millions yi ba léegi. déedéet man du ma dàqee. yaa ngi wut. maa ngi wut. yaa gisagul. sama caméra merci beaucoup.

moo tax ma nangul la li nga yàlla def waaw mais kontaan ni lañ ma yaa ko def ñoom waa dëgg neexul yéen a gaañ la dooloo war rek parce que xam nga ñoom aw ma seen a ma ne balaa grand théâtre bi dañuy def benn jour boo xamante ni xam nga dañ koy def ñu nag bëggee mu nice waaw ndax doomu dëkk bi laa man def naa fi micro a seen dënd parce que ñëpp dañ yaay booy bu fi nekkoon yaakaar naa ne ci lay gën a neexee naka nga yegee parole yooyu nga xam ne maire yi génnee nañ ko jëmale ko si yow waaw mais damay seetlu suñu borom rek ah parce que yàlla lu mu def daa gën damay ñaanal sama yaay fu mu nekk gën a ko fu mu jugee ndax lépp moom la amaana boo xamoon sama yaay di nga xam ne man nag ah ñi rek laa mën a mel ñi rek la mën a xam nga ñàkk yaay moo gën a nekk lépp waaye ma koy ñaanal fi mu a ko fi mu jógee parce la lañ ko desal waaw. ban yëg-yëg nga am sa yaay wuute ko ban yëg-yëg nga am ak lan nga yëg sa xol. waaw lu ma mu tooy rek xam nga parce que xam nga nit ku nekk amoo lu dul sa dëkkuwaay waaw moom waaw loolu ma suñu xuus daal yaay lañ Eh, sama yaay aussi daa am lu mu meloon si man waaw noonu la demee. naka ngay waajalee li nga xam ne moo di grand théâtre a ah, waaw xel mu dal incha allah dina neex dina yëngu incha allah ci kattan suñu borom di ko fekkee si jàmm dina neex dina yëngu. bu xamee la ambiance nga ñëwee fay ambiance bi nga fi yëngal koy lan la yan surprise lañ mën a xaar grand théâtre. ambiance sax ndax lii fi amul son sax waaw xam nga affaire dañ ñëw rek ñëw def affaire sabar incha allah di nga dégg musique di dégg ambiance incha nga nekk sa nekk si nga xam ne moo di milieu musical bi ñu gis fi mu nekk nii milieu bi jaxasoo na concurrence bi bëri ñu gis Wally Seck li nga xam ne moo di wuro Sidy Diop génne ngalam nga nekk si milieu ah, bi naka nga ko loolu. milieu bi ku si nekk li nga bëgg yàlla na loxo yàlla defal ku ku na de. mënul ñaax waaw mais ku si li nga yóotu yàlla na la ko yàlla defal man loolu laa mën a wax. wasaare yaa xam li nga def yaa ko sentir waaw mais ku nekk tamit li nga yóot yàlla moo ko lan ngay wax waa wax mooy wasaare dëgg neexul ay ndaanaan lañ maa ngi bëgg bu baax a baax da la ñaanal nag a ah, yokkutee ndax ba ngeen jàppee ba tey mu ngi gën a baax waxal gars yi ñu dem abonné ji wasaare bés leen ko nànk neexul waaw li la yàlla def merci Thank you. Thank you.